bu leen bu leen ŋaayoo bu leen dogoo bu leen bañante na ngeen bëggante kunu ibadallah ixwaana kii tijaan la buleen ko xam kii murid la bu leen ko xam kii xaadir la kii laayeen la kii naqsa bandi la déedéet man li sëñ tubaa wax rek laa gëm sëñ tubaa li mu wax mooy radiya an ni siftuhul jilaani alayhi ridwaanu lazi alaani nee na man xaadimu rasul liggéeyal naa Cheikh Abdou Qadir Jilaan ba mu gërëm ngir maa ni gox ci laa rawee samay maas kenn dootuma jotati radia an ni sibtuhul jilaani alayhi ridwaanu lazi alaani ñu ne ko déedéet xaadimu rasul mu ne radia an ni sibtu abul xasan alayhi ridwaanun yu xalidul xasan nee na imam saazali te mooy alxasan di sëtu seydina muhammad nee na gërëm na ma ngërmaande boobu sama jàmm ci la béelee dootuma jeexal jàmm moo tax ku yóbbu tuubaa yàlla yóbbu Touba ku yóbbu Touba yàlla yóbbu Touba kenn mënu ci dara bu ñëpp ne woon duñu màggali sax xob yi màggali waaw hmm. wallaahu yansurni ah yan ah waddahu ñu ngi noonu lépp may topp fil bari wal bahri bilaa dara jéeri ji ak géej bi yépp may topp man xaadima rasul damay netti la waxam waxu ma ne man la de ndax dii nga dafa yomb dama ne man xaadimu rasul damay nettil kàddoom sëñ tubaa yemu ci mu ne radiya an ni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mu biidul jaani mu ne Cheikh Tijaan Chérif gërëm na ma radiya an ni xulafaawul arba mu ne sahaaba yi gërëm na ma aboubacar omar ousmaan ali xustu ridal muqarabin malayka yi sës rëkk ci yàlla gërëm nañu moon xaadimu rasul mu ne man lam yakun anni yardaw fal karim radiya anni ridan lan yarim mu ne ku ma gërëmul sa yoon yàlla gërëm na ma ngërëmaande wax na dootuma ñàkk a gërëmati man fii laa ko téye bu ñëpp xalaboon te ma ànd ak góor yàlla yu baax na maa ngi topp Maodo Malick si topp Xaadimu Rasuul maam Sëñ Tuuba maam Alaaji Abdoulaye Niass Mawlaana eh, Cheikh al Islam alaaji ahmad dem bu sookoon alaaji omar ndaw daaru salaam fuuti taal xaluma jara ku topp ñi ban ngay am looy dawati bay daanu kon bu leen ànd ak ñuy diingat góor yàlla yi man aadaali waliyan faqad azantu bil harb képp ku noone waliwu yàlla yàlla mu ngi takk xare jëm ci yow xare yàlla xaj na ci nit dëkk boo dem ñi fa bañ yàlla danga koy xàmme te waxuñ la ko dëkk boo dem buy Kaolack buy dakaar buy Njaareem buy Saint-Louis buy Bagdad buy Makka buy Faas buy Sagne Bambara buy sibasoor buy gànjaay buy Fatick dëkk boo dem ña fa ña fa bañ yàlla da ngay xàmme seen kër yi ñooy gën a furi ñooy gën a ràpp ñooy gën a yàqule ñooy gën a dellu gannaaw musiba yëpp seen kaw lay wàcc